ay Serigne Fallou Luc Nicolaï xalif général kulub promoteur loo def nii le combat royal tant attendu tey mooy dimanche juróomi fan ci weeru novembre atum 2023 drapeau Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass ñoom ñaar dellu soit nañ ci digg géew bi Kapay moo ñu ko may ci Sénégal ak li ko wër waaye Kapay kenn du yow muy transfert d'argent bi gën a wóor waaye bu dee bitim réew seen affiche point com ngeen di seetaan noonu Modou Lo ak Ama Baldé dellu soit nañu wurewa dem na kang waxu dem na ndañ taali bàgg war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb Ama Baldé à gauche Modou Lo à droite KP jërëjëf Serigne Fallou li Nicolas jërëjëf télévision Futurs Médias jërëjëf waaye seen affiche point com jërëjëf ndeysaan ku suufle ba dal na Ama ak Modou ñoom ñaar ñu ngi lew ñu ngi lew too laa yaa booy maa lay bëggee Pokola ak Gàkku Dóor noo dundee combat bi bu am solo combat bu neex mu ne combat bu am solo ñoom ñaar ñu wane lu am solo ñoom ñaar ñu bëre bu neex bëre bu am solo boo xamante ne ni gis nga li nga xamante ne moom moo si am Pokola moom moo am ndam ci biir géew bi mu nekk loo am solo ñu koy félicité ñu koy félicité bu baax ci yoonu làmbam tijjeeku na parce que ki mu daana ko njëkk si làmb ki mu daana ko ëpp expérience ki mu daana ko njëkk a bëri ki mu daana ko ëppale lu bari ci làmb moom moo am si ndam c'est-à-dire tijjil na boppam ay bunt tijjil na boppam ay bunt nee na na ko sos may chance loolu la wax waaw waa waaw jaadu na. mais gis nañu kii di gàkku de door na ko ba mu kaaw foofu lan la waroon def. waaw gàkku foofu dafa juum gàkku dafa tam moom ces derniers temps seetlu nañu ay combat am day bëre di xeex dëgg la bëre door la ñu wax mais boo dooree sa adversaire ba am en mën a moment nga jekk ko dangay ngay dem nga bëre bëre na dóor na ko ba wër ko nombo boo ko wëree nombo taxawal nga géré gàkku bërekat la gàkku dafa mën a bëre ci équipe bi mu nekk ñëpp nangul nañ ko mën a bëreem am na foo xamante ne boo fa tolloo ci biir bëre da bàyyi xeex bi nga dem ba nga dem bëre xëy na erreur boobu la def ba tax tey jii Pokola tourné mën a wëlbatiku bëre ak moom daan ko mu nekk jël bu leer. ñu gis tey xale yi ñoo moom làmb ji xale yi ñoo moom làmb ji loolu na ko mbër yu mag yi xam na ko mbër yu mag yi na ko mbër yu mag yi xam na ko VIP yi xam na ko ñëpp xam xale yi ñoo moom làmb ji xale yi ku ku bëreewul ak ñoom nii nii nii daan leen li grand baal ma yeggale ku bëreewul ñoom nii nii daan leen léegi pour nga daan leen dina jafe nañu leen jël ñu bëree ñu bëree ñoom may leen chance comme Pokola demandé na Zos bu ko Zos mu nee may chance na ko may chance bu mu nee may chance gàkku deux mu may ko chance parce que gàkku deux def na mérito na lu tax mu dem bëre ci kaw ndaanaan la combat bu am solo ñuy féliciter le promoteur Petit Lo tëjil na boppam yoon yoon ndaanaan la ndaanaan la xale la boo xamante ne nii bi mu ñëwee ak léegi à chaque fois bu bëree da ngay gis ay argument lay indi yu leer ci côté technique ak ci côté ci que bu dóoree rek bu jàppee day daw bëgg a plaqué bu dee gars yi comprendre nañ ci moom geste boobu noon tamit après mën na indi problème kon nag xoolaat bëre bi xam ni bu fekkente ne bu jàppee bu dee loolu jig na ko parce que benn kele mbër um na ci làmb mais bu dee loolu jig na ko nay gaaw parce que def na ko tey ci biir combat bi deux fois ci deuxième fois bi wala troisième bi la soog a ñu koy wax ni buntam tijjeeku na mi ngi ci yoon bi ñang baalo buntam tijjeeku na mi ngi ci yoon bi vraiment champion la parce que tey Ibo la daan te Ibo pour nga daan ko ci làmb yombul bërekat la séeréer la mu nekk koo xam day mbapat kon ñang baalo tey wane na ni am na lam am na cër ci lam ne na bàyyi di bëre di dóore bu daanee adversaire am ba pare dóor ko bii mooy deuxième fois xaw ma mu koy def baaxul mën na koy indil ay jafe-jafe ci wàllu règlement bi. mbër yu mag yi dañoo am benn euh, saison bii dañoo gis seen fréquence ci seen fréquence ci biir arène nationale gis nañu am a seen def na ko fi. gis nañ ne Tapha Tine def na ko Balla Gaye 2 te loolu nan ko gisee ndax ku ci mel ni Modou Mbaye mës naa def loolu ne mag ñi nañ ñëw assister xale yi loolu. loolu mooy yoon parce que ñoom bi ñuy nekk mbër paa yi dañ leen daan gunge si Balla Gaye papaam da ko daan gunge si père Balla da ko daan gunge si kon bu fekkente ne gaan waaw bàyyi ñu ñu wax nag waaye bu ñu yàqal nag bàyyi ñu ñu wax rek waaw si waaw bala Gaye 2 bu ñëwee Eumeu Sène bu ñëwee keneen keneen ku mën a ñëw gunge si xale yi loolu moo leen war parce que ñoom tolloon nañ ci classe bi xale yi toll tey bu ñu demee ba nekk ci kaw gérer écurie yi kon dañoo war walbatiku bu xale yi di ñëw ci làmb ñu ñëw di leen gunge si li Balla Gaye def tey lu nice la xam naa ne Ama bu amuloon combat da ñëw ak keneen ak keneen yoo koo xamante ne sax problème mi ngi bëre loo am solo la ko mbër yu mag di def xam ni loolu mooy tax ñoom ñu jox xale yi làmb ji bu fekkente ne ñoom dañuy toog seen kër rek kon ça veut dire que ñoom ba tey ñi ngi fii mais bu fekkente dañuy ñëw ci làmb di gunge xale yi loolu day wane ni ñoom ñi ngi jox xale yi làmb ji te loolu am solo la maa ngi lay bëggee Fall. mais nu ma ko gisee. na ko daan na ko. quatre appuis. ñu la wala la. def. quatre appuis la. na plateau sànq ba nangu ni daanu na. Ah, waaw. mais tey nan la gisee lamb ji Fouta production. njàmbaar waxuma Fouta production moo koy may ndam. njàmbaar. moo koy may ndam chaque jour. njàmbaaram moo koy may ndam. du tiit. moo ko am Siteu nii la demee woon Pokola da ngay dóor bay bëgg a dee mais ñeme ak gëm boppam mooy tax affaire yi di tourner ci moom. ñu gis pare continuer waaw mooy la ma la wax njàmbaar ko génne ci làmb ji amul leneen Pokola lu dul njàmbaar génnewu ko ci làmb tey ji te yàgg na koy dal nag waaw. tey ni mu bëree xeex bëree tey ni mu bëree est-ce que ñu gis dafa mel ni loolu abrégé. non Gackou 2 deful benn erreur ci combat bi problème bi kay mooy lan moo tax mu rëcc bi mu ko wëree ndomb. nee na tànki moori tax moo tax loolu la wax bi mu toogee mais gàkku du ak li mu mën ci bëre warul wër ndoom ba nit muy rëcc waaw ay Pokola daal gaynde la mu jàmbar man maanaam ñoom ñaar ku ci nekk dafa am signe boo def mooy Petit Lo ak ak ak Pokola kenn maanaam kenn waru ci woon daan parce que kenn waru ci woon a daanu parce que bu ñu daanu woon rek après day nekk pression ci seen euh, kii yi leet yi Ah. parce que dafa am lu leen di xeer dimanche bii. parce que ñoom ñu à suivre. non dafa daan. ni nii king bu mag bi mooy ñëw dimanche loolu la wax. Oh. dafa def signe bi ñu laaj ko fee mu ne loolu la doon wax king bu mag bi mooy ñëw dimas war indi ama. pokolaa pour Petit Lo boobu. non non non du mu combat du combat. c'est pas le moment. mooy làmb ji. buñ fi jël keneen ñoom ñaar ku ci jël keneen da ngaa ragal loolooy làmb ji amul wiir wiiri ñoom ñaar mooy làmb ji. teelul lu ciy teel dañ leen fay ñu bëre waaw. tey euh, nan nga gisee ñang baalo. ñang baalo tamit njàmbaar njàmbaar ko may man daal ay gaynde la la la bub su boole tey ñu def ci koy gaynde bëre bëre gaynde xeex daan waaw. am na espoir yu gën a neex combat mag yi de am na mag ñoo xam ne bu ñuy bëre fii combat Balla Gaye ak Boy Niang lu ko dàq fii bëre nañ combat Reug Reug Sa Thiès ko dàq waaye tamit espoir yi xam nga dañuy bari neuf combats yëpp ay espoir lay doon ben mooy nekk grand combat mooy nekk ay combat VIP bi lu ci ëpp souvent waaw. Boucher ak euh, Cokke. Ah, ah combat loolu la am loolu combat amu fi de 13 minutes de balancement de bras moo fi am de. mais ñëpp ñu naan Jokal moo waroon ñëw parce que mooy mbër moo war ah ah wax dëgg yàlla Boucher daal amul lu muy perte vraiment amul lu muy perte ci combat bi daanaka daanu la yemale première chose bi mooy doo ko waru woon a jël sax waaw waru woon a jël Boucher ay jël na ko xamoon na xëy na dafa am ay argument moo tax mu jël ko mais noonu la ko yàlla dogalee daal parce que Jokal tamit wax dëgg yàlla bu lépp weesoon nit ku yaru la du du mosuma koo gis muy dox ci ay détails. loolu weesoo nag la cinq fii la la fi nga taxaw nii incha allah laa ci la cinq le cinq daal balaa heure bi yàlla na lamb ji jeex ci jàmm waaw ci jàmm ci jàmm lay am de lamb ji fi ñëw bëgg fi yee fit na tamit bu la gars yi jàppee kenn du la ñaanal parce que lamb ji dafa war a am ci jàmm am ci salaam waa Pikine ñëw ci jàmm waa Parcelles ñëw ci jàmm lamb kese la mënul weesu lamb lamb bu ne am na fii Balla Gaye ak Yékini benn yoon la ñu def face à face bi seen làmb amee benn yoon lañ toog dégg nga li ma la wax est-ce ma la wax. Balla Gaye ak Yékini benn yoon lañ mës a def face à lan moo tax loolu parce que ñu woon a gisee Thiès la fa xew gis nga ko ñu ñëw teeru bi ay sànnante xeer ak toj ay bouteilles benn yoon la ñu jàkkaarloo te jàkkaarloo boobu noonu sax maanaam buntu RTS la amee gars yi di sotti ci ndox. di ñaan pour mu am ci jàmm ak yooyu noonu mu am ba jour si maanaam dama lay wax ne dayoo combat fi mu tolloon quoi moo tax Modou Lo Balla Gaye jaar na fi mooy li ma waxoon Ada Fass Zarko loolu laay wax Modou Lo ak Ama Baldé ak seen i topp nañu ñëw ci jàmm mbër buy jëlee avance moom moom kese ànd wala moom mënaat zéem kon bu ñu ñëw fii dëgg la sax mënuñu mënuñu ñàkk ay topp mais topp yi ngalla waay ku ci nekk na yem sa mbër man la loolu lay wax ku ci nekk na yem sa mbër vraiment. pour rendez-vous le dimanche. waaye nag looy tiitre na nga xam looy tiitre na nga déglu li ma wax nga tiitre ci li ma wax. rendez-vous dimanche sinon naa la porte plainte. porte plainte Fallou Ndiaye. porte plainte Mansour ak kii Khalil waaw. mais après damay ragal ne yaa ñuy porte plainte yaa ñuy jël si. amul problème waaye naa leen porte plainte ba pare rek. waaw maa leen fay. waaw lan ah, laa yëg. balaa cinq lay gën a neex bu soobee yàlla mu wax. Pokola tey Pokola tey nan nga koy indee. nu mu indee rek laay waxoo. Eh. dafa encaissé coup jàpp bëre daan. waaw. tey Pokola tey Pokola ama ko mais tey yow yaa jël say initiative indi ko lan la lu. waaw. dimanche laay gën a confirmé loolu. Pokola lépp lu nekk si moom yaa ko def. dimanche dama bëgg Modou Lo loxoom jóg dimanche. Pokola tey ni mu bëree nan nga ko gisee. non ndax mooy loolu nu mu demee rek mu kon loolu lool rek. kon affaire yooyu rek. nga tuus. gittee cere ndawal te ba tuusee sa xel ci ne. waaw gëj naa ko tuus torop. waaw. incha allah bu soobee la cinq la ñuy xaar gën a confirmé. ak le douze ma na ma cinq victoire laa indaale. benn ñëwagum nañ boobu yow yaa ko fekkee. mu ne ban yan ndam moo ci la quatre quatre moo la. ah ma ma dese Ama Sène Babacar waaw. tey Pogola la jëm. ah ku jëm Pogola. Pogolas nañ si mbër yu mag yi. ñaan ko may sens dañ ko may sens ay ay Moussa Ndoye Moussa Ndoye ay eh, Moussa Pouy waaw bëree ni bëree dafa jël coup waaye dafa topp action Moussa Pouy lañ soxla Moussa Pouy lañ soxla bu ñu mënta am Moussa Pouy ñun soxla ñu mbax yooyu ñuy wutal yoon de e wuyu ma ñun soxlaw ñuy yoon de eh ñun duñu mba tal yoon dañuy jox ay paade Issa ñàkk pexe mais bu ñu mën taam Issa Pouye duñu ay déglu ay aada faas jox ay paade ñun xale bu ndaw la ñu soxla Serigne Sall ama mën def ay Serigne Fallou Luc Nicolaï xalif général kulu promoteur loo def nii le combat royal tant tey mooy dimanche juróomi fan ci weeru novembre atum 2023 drapeau Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass ñoom ñaar dellu soit nañ ci digg géew bi Kaapay moo ñu ko may ci Sénégal ak li ko wër waaye Kaapay kenn du yow muy transfert d'argent bi gën a wóor waaye bu dee bitim réew seen affiche point com ngeen di seetaan noonu Modou Lo ak Ama Baldé dellu soit nañu wurewa dem na këng waxum dem na ndañ taali war na mbaam lu waaye doon jaay léegi mu lamb Ama Baldé à gauche Serigne Fallou nit Nicolas jërëjëf télévision Futur a jërëjëf waaye seen affiche point com jërëjëf ndeysaan ku soufflé ba dal na Ama ak ñoom ñaar ñu ngi lew ñu ngi lew too laa ilaha illallah ay waay xool leen bi Modou Ama Baldé ñu ñu ngi xeex ñu ngi xeex xeex bi métti na ñoom ñaar ñu ngi xeex oh